Aïcha jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre di ñu bàyyi xel ci solution TV solution info. mbégte la ñuy am beneen yoon ñëwaat nag comme niñ ko baaxoo di defee saay su nekk lundi bu jot ci l' émission des émissions ñu fas yéene si ànd ak Alaaji Sanjugu Meng ñu nuyu nag euh, képp ko xam ne rek internet nga rawatina nag yéen ñi nga xamante ne ni yéen a nekk bitim réew di ñu bàyyi xel saay su nekk dem ba ci wàllu ceskaay yi benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm ñaanal ko nag sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahat Mbàkke yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njabootam bis ko ñaanal mboolem xalif yi ci biir réew mi yëpp Aïcha nag balaa ñuy door l' émission des émissions dañuy ci euh, bàyyi nag ñu nuyu ki nga xamante ne ni moom nañ ci àndal say su nekk muy Alaaji Sanjoogu Meng mu nuyoo internet yu ñuy suivre Alaaji maa ngi lay nuyu. Euh, ma jigéen ñi ngi lay fay di la ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte de kontaan ci yow dem ba Touba nuyu xalifa général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ di nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp nuyu nañ sëñ mbakk Karim Mbacke borom Makaarimul Axlaaq di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci xarala gi Alaaji Modou Diouf Abdou Top Ablaye Diallo waaw di am mbégte ak kontaante bu baax a baax di teew ci plateau bi tey nag di bés bi nga xam ne eh, mooy génn àdduna Alaaji siit Lamine ñas eh, senegal yépp di ko fàttaliku mu doon koo xam ni Euh, def na lu am solo ci réew mi sunu Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum da doon wax ni Sénégal dëkk la bu neexa deewee te naqaree dundee muy wax ju am solo tey boo gisee ñu bari ñi ko nangul démb ñooy ñi ko bañaloon et pour pourtant ñooñu xamoon nañ ko de mais dañuy du caag ni dañ ko réere woon waaye dañ doon bañ rekk mu jiitu parce que compéti àddina compétition la ñenn ñu bari bu ñu xamee ni mënuñu laa dab dañ lay fakkastal moo taxoon ñu koy tegal ay ndëgg sërëx di juger nit ki selon ñoom ni ñu mel loolu nag tey àddina wane na ko ña ko bañaloon démb tey ñooy nangu ñu bari da daj ak ñoom ñu naan la Sidy lamin ay bu fi nekkoon loolu nekk loo xamante ni bii lu am solo la ñu koy ñaanal fa mu nekk gënal ko junni yoon fi mu jóge ko ñaan sunu borom yokk leeram boole kaak baayam bu baax ba maam xalifa donc loolu di loo am solo macha allah jërëjëf Mbengue Mbow ñu ñaanal ko bu baax rek yàlla suñu borom yeesal yërmandeem te tas ñu si barkeem di ñaanal nag képp koo xam ne rek dëddu euh, nga fi yàlla yërëm la te xare la àjjana bu ngeen gisee nag décor bu nice bi nga xamante ne ni si bis studio bi ñu nekk euh, Sandiogou dippee ko ko moom Sidi Lamine Niass jikkoom ju rafet a tax parce que ku ñu tuddee dara rek daa fekk sa jikkoo baax macha allah ay ci mi ngi noonu ñu daal di wéyal suñu waxtaanu tey ñu fas yéene ci ànd ak. ak euh, Souleymane euh, Jules Diop mi nga xamante ne nii coowal jolok ba woon ba tey ñi ngi wéy di ci nemmeeku ay coow ay wax ku nekk rek di wax ne man maa initié li ni mel moom nag ñëw na ci àddu tontu ki nga xamante ne ni moo di euh, Barthélémy Dias jàkkaarloo woon nag ki nga xamante ne ni moo di Maïmouna Ndour Faye daan ci ñëw léegi léegi yaatal ko incha allahu rabbi buñ ca noppee nag Farba Senghor demoon fële ci émission ba la ñuy wax Ndoumbelane ak Ndeye Aïcha moom nag xaw na faa ñasante ak yi nga xamante ni moo di Serigne Saliou ci ay accusations yu nga xamante ne ni accusé na ko Ousmane Sonko ngir rek nee na dafa doon attaqué ay généraux ba ñu coow la coow ci ñasante ci léegi léegi alaaji dina ci ñëw indi ci xalaatam. ñu ànd ak Lam Mamadou Lamine Diante moom itam wax na ci CDC euh, mi nga xamante ne ni mooy caisse de dépôt et de consignation yi nga xamante ne ni fa la ñuy yóbbu li nga xamante ni moo di caution yi waral ñu mën a participer ci élection yi ñu jëm incha allahu rabbi muy 2024 ak Ayib Daffé mandataire Ousmane Sonko lañ ca nemmeeku moom it dana ci indi ay leeral ñu jeexalee nag ak scandale foncier bi nga xamante ne ni lu toll ci 6000 mètres bu nekk ci benn village bu nekk fële. fële ci Diass euh, ab benn ndaw nag dikk na àddu ci di concerné nag foncier boobu muy ma Madiambal Diagne ak doomam daañu ànd ak yéen euh, dëgtal leen ko ni mu gën a yaatu alaaj ji joxe ci version mi tam ay cheikh dañ koy daal di doore ak Souleymane Jules Diop ci dialogue bi fi amoon ba ñenn ñu bëri demoon ca dialogue ba Ousmane Sonko bañoon caa dem ñu déglu ki nga xamante ne ni moo di Souleymane Jules Diop lam ca wax ak Barthélémy Dias. dafa am ku ma woo un responsable des droits de l'homme saa problème dëkk bi léegi rek dama koy woo ñu waxtaan moo tax yenn yenn idées yi man du ko génne noonu dama ne ko ci mois de juin ma ne ko toll nañ fu nga xam ni c'est irréversible Macky woo na Ousmane kaay ñu waxtaan wax naa condition yii nga xam ne. ci la Macky woowee Ousmane ne ko kaay ñu waxtaan man maa waxtaan ak Barthélémy Diaz waaw ñu waxtaan mu ne ma wax nañu lii di di di ma ne ko ba président bu wootee du wéet mu ne ma waxtaan na ak Ousmane Ousmane d'accord na yow yaa enclenché waxtaan bi entre président ak Barthélémy dama lay expliquer déroulement bi bi ma bi ma bi ma Barthélémy mu waxee loolu mu ne ma depuis six mois maa ngi woote jaloo ëpp na ko sax kenn faalewu ma bi ma paree Ousmane bi ma paree Barthélemy dama rendre compte président ma wax ko li ma ci xalaat man li ma xalaatoon mooy dañu waroon a ubbi dialogue Macky woote dialogue ba noppi ne il appelle tout le monde sans exclusive ma yaakaar ne ay niti euh, Sonko dañoo waroon a profité ci loolu ne ko demal ci dialogue bi nga poser sa problème. comme l'a fait Khalifa Sall. comme l'a fait Khalifa mënuñoo saafara problème yi xalifa bàyyi sa problème demal wuyu ji. bu ñuy régler problème bi assemblée nationale ñu régler ndoo problème yi yëpp il n'a pas répondu tribunal il n'a pas répondu dégg naa ba kenn ci avocat am avocat am yi maître Bathily Samba Demba Ciré Bathily muy saraxu juge bi ne ko dina ñëw mais xëy na dégg ñi dégluwuñ ko mais ya a des gens radicaux de toutes parts y compris avocat bu jóge France nga xam ne dafa dem ba bind règle bind livre ci pour mettre les méthodes d'insurrection la théorie du chaos du kooku lu mu mën a xelal Ousmane ñu dugal ko ci loo xam ne pour man impasse la léegi dañu toll ci impasse bu may wax ne nunu waxtaan nunu jël temps waxtaan bi ma waxee euh, bi ma waxee kooku loolu dama ne ko léegi lenn rek a mën a am ci baaxi président de la république ñu ubbiwaat waxtaan mais waxtaan boobu ubbiwaat ko dina jafe bu fekkente ne dañ ko war a tenir dans les prochains mois yi parce que lii des pour élection yi ñëw Aïcha mi ngi noonu jërëjëf euh, Modou Diouf ak Abdou Top Alaaji euh, Barthélemy Diaz toogoon na fi wax ne moom moo initié li nga xamante ne ni moo di dialogue bi tey jii suñu toggee dégg ku mel ni Souleymane euh, Jules Diop taxaw wax ni moom moo sàkk li ni mel et que ñi doon xaw a laam-laamee que ni président Macky Sall bëggul discuter dialogue gi ak Ousmane Sonko moom tey dafa mel ni dafa leeral li ni mel. waa xam nga ki ko initié ak ki ko initié loolu moom amut solo li am solo mooy woote nañ ab dialogue boo xamante ni am na ñu dem am ñu demut ñi demut bokk ci ku ñuy tuddee Ousmane Sonko wuyu jiwut dialogue bi ñi dem bokk ci ku ñuy wuyoo Khalifa Sall dem na wuyu ci dialogue bi Souleymane Jules Diop dafa wax ni euh, ñi nekk ak Ousmane dañu ko waroon a bàyyi mu dem. Euh, bu demee day poser problème am ñu régler problème am dafa mel ni loolu bu ñu ko waxee euh, dafa mel ni Ousmane Sonko moom dafa am problème loolu mooy li ñu Souleymane Jules Diop di dégtal hmm. maanaam moom dafa am problème Ousmane Sonko teyit dafa jàpp ni ñi ko dugal ci mbir mi déggoo boo déggee dana ñi ko dugal ci mbir mi maanaam dafa mel ni Ousmane Sonko moom ab xale la bu ñuy jël di ko watat di ko dugal ci ay mbir ak di ko génne maanaam demut ak xelum boppam maanaam Souleymane Jules Ousmane Sonko boobu la ñu présenté ñëw na ne bu ko defee président ci mbaaxaam yem gis nga ko fa mu génn ci ki nga xam ne mooy président hmm. yooyu yëpp nag ay jeu de la yoo xam ne ay wax la yoo xam ne bu ko nit ki di wax hmm. bul yaakaar ni wax ji xamut li muy peser xam li muy peser moo tax mu di ko mu di ko def maanaam buñ naan loolu dañ lay bëgg a wan ne la Ousmane Sonko amul expérience xamut euh, moo tax mu topp ñenn ñi ba ñu dugal ko ba fi mu toll ni mu dugg ci benn impasse kan moo nekk ci impasse ndax usmaan Sonko moo nekk ci impasse wala ndax ñi koy teg liñ koy teg dem ba mënatuñoo dem élection ñoom ñoo nekk ci impasse c'est foofu la problème bi ne problème bi bu ñu jël ñoom li ñu ne tey nga xam ni dañu dem ba dugg ci mbir moo xamante ni liñ lay déggloo ak di la ko gisloo nekkul dëgg-dëgg loolu mooy li nga xamante ni mooy li xew ci penc mi parce que bu fekkente ni bi tey dañ la bëgg a wax ne la Ousmane Sonko ak président Macky kan moo ci nekk ci impasse kan la. mais ñenn ñi dañu jàpp ne Sonko moo nekk ci problème parce que moom la ñuy jàpp tëj jël ay ñooñam tëj jël parteem tas def ay affaires yu nga xamante ne nii il faut moom mu dem jàkkaarloo président bi pour mën a waxtaan. waaw xam nga liy tas parti ak liy tax parti di ne. Hmm. loolu du ci nit ki maanaam yoon moo koy santaane ndax ni ñu tasee parti bi ndax jaar na ci yoon ndax li nga xamante ni bii tey moom la ñuy àtte ak li ñuy dogal. ndax jaar na ci yoon walla jaarut ci yoon c'est que bu fekkente ni bi jaarut ci yoon rek lan mooy manipuler yoon ba muy doxalee yëf yi noonu xam nga tey barki Demba Ndiaye dafa am loo xam ne xew na fi mu am ab juge bu àtte ca Casamance jox Ousmane Sonko dëkk ne lii ñu ko def waruñu ko ko def mm. nañ ko delloowaat ci mbir yi ñi nga xam ne ñoom ñooñu waxoon nañu yoon lañu nangu yoon la ñu gëm yoon lañu ñu kii ñooñu ci jëm seen jëmi bopp lànk na jëfewuñu ba noppi daa dee dem cour suprême bi ñu demee cour suprême cour suprême delloowaat acte bi yoon ci boppam moo am ay jafe-jafe mais c'est pas que Ousmane Sonko nit ki moom mooy problème fi moom moo am problème fi mu mm-hmm. toll nii mm-hmm. maanaam ñi am problème dañuy nëbb seen problème di la wax ne la xoolal problème bi nga mujj nekk nii mais nekkoo ci de mais yow pour nga nekkal waa ji ba nit ñi gis ni problème la da nga créer ay problème yu baree baree baree bëri yu la topp kon waa ji nekkul ci problème yow yaa ne ci problème euh, ñoom ñii ñëpp tey boo gisee ba tey ñuy wax ne nañ waxtaan moo lay wan ne la dara réglé wut maanaam bu ñu demee ba ne jaloge nañ ba waxtaan ba pare bu ñu fa jógee lépp dafa war a réglé donc ñoom xam nañ ni dialogue wuñu ak ki ñu war a dialogueel Souleymane Jules Diop maanaam li mu ñëw di avouer nii maanaam dafa def aveu ci kanamu nit ñi te nit ñi seetluwuñ ko li muy wax yëpp amut sens xam li am sens mooy lan mooy maanaam dafa ñëw pour woote waat waxtaan mooy wane ni kon li ñu waxtaanoon baaxul mhm. parce que bu doon li ñu waxtaan baax na du def émission wala muy wër plateau yi di waxtaan naan nañ waxtaanaat nañ ubbi waxtaan waxtaan wi moom moo ko gën a soxla xam nga Ousmane Sonko dafa def benn mbir moo xamante ne mbir mu am solo boo xamante ne bii ñoom ñëpp daf leen a jaaxal. muy fàtte boppam jiital keneen maanaam pour wane ni mbir mi du man xam nga boo seetee dafa am loo xam ni dafa am ci pénc bi ñu gis ko ñëpp loolu lañ jàppoon ni noonu la yëf yi di demee muy opposition di pouvoir li ñu jàppoon mooy xalifa ñëw na fi ñu galgal ko bàyyiwut benn candidat dem ci li nga xamante ni bi mooy élection mujj gi dañoo jéem a jàppale ñeneen Karim Wade ñëw na fi ñu galgal ko bàyyiwut beneen numéro 2 boo xamante ni bii mooy dem. tey Ousmane Sonko ñu galgal ko pour ñoom même scénario yooyu mooy répété wu maanaam du bàyyi benn numéro 2 far Ousmane Sonko nag am numéro am am am ñeneen ñu mu proposé non seulement proposé wut kent mais proposé plus de juróomi nit donc nag loolu mu suñu xalaat ni lu mel noonu nit dina ko def xam nga lu tax. maanaam ñoom fi ñu toll ci nguur ak fi ñu teg nguur moo tax mu suñu xalaat ni lu mel noonu nit dina ko maanaam ñoom bu ñuy ànd ak yow it dañuy bëgg nga jiital leen rek mais yow du ñu nangu mukk nga jiitu leen c'est que problème boobu la ñu am tey jii nan lañ mën ñoom nu ñu mën a comprendre nan la usmaan soo ko mën a ñëwee ak li ko sunu borom defal yëpp mu jiital Bassirou Diomaye Faye. mais loolu waru leen bett puisque Sonko yàgg na taxaw di wax ni projet bi du man. waaw ah, gëmuñu ko xam nga gëm. mooy li am solo nit ki mën na yàq nga ne day sóob rek. Hmm. day sóob rek lañ nekkoon ba tey nag loolu nekk dëgg-dëgg lu ne donc nag xam nañ ni waa ji sóobut. Hmm. maanaam Sonko li mu teg nii maanaam dafa dox boo xamante ne bii ñoom ci seen jëmmi bopp dañu am problème. parce que dana leen budul man budul man rek di keneen. loolu la teg fi mu toll nii. Hmm. te lii mu teg ñoom xam nañ ni jéggi ko yombul. parce que dafa am lu sunu borom nag defal Sonko ci jamono ji. joxe ndigal wooteel leen ma jigéen ñu voteel ko. loolu moom yéegi ñoom yëg nañ ni Sonko am na ko. te nag mën na koo def ci ku ko neex. loolu mooy seen jafe-jafe. <laughs> am na solo dégg nga euh, rafet na xalaat yi dañuy dem nag <laughs> ànd ak Farba Senghor mi nga xamante ne nii ba tey coow li génnul suma Sonko mi nga xam ne daf ko accusé mu ni dafa euh, tuumaal euh, ay ñi nga xamante ne ni ñoo di généraux yi ba Serigne yu Guèye doon ko ci artu ñu dem xooli ko dellusiwaat. ñu gis ko mu attaqué des généraux. non non non il faut nga leeral comment il les a attaqué. d' accord ak lu mu leen mën a attaqué rek il les a attaqué. non Farba Senghor aussi gis nga waxtaan bi aussi wax dëgg da ci baax bul toog fii di ba raconter rek di wax di wax li nga gisal li nga wax day ko argumenté muy leer ci kanamu nit ñi moo gën. non xam nga parce que quand tu dis que dafa attaqué ay généraux il faut dire que lii la wax généraux yi attaqué leen. d' accord attaqué na ay généraux Sénégal yi xam ne du ma ñëwaat ci détail. ah non non non mais gis ngeen fii ñu attaqué généraux yi. diffusion de fausse général Fall États-Unis gisuñu fi benn hmm. waay boo xam dafa jóg di taxaw di attaquer hmm. président Biden gars yi fekk ñu ko fa fetal ko mu dee. ne ma ne. on a vu quelqu'un ku génn ci réseaux sociaux yi. mu attaqué Biden. ñu fetal ko. fetal ah loolu de yow yow gis. Eh, non la Sénégal. ah loolu loolu de yow yow gis. man ah, ah, de yow gis. waaw d'accord yéen gisul États-Unis nga wax de. États-Unis est-ce que États-Unis d'Amérique bu fi inventé de. parce que boo de. ren ren ren ren ah. waaw loolu su loolu su amoon tey Biden dootul toog au pouvoir. wax ma yëgal loolu waay yow. ma yëgal loolu waaw d'accord dama la bëgg a wax ne Ousmane Sonko Ousmane Sonko il a attaqué il a fait un problème d'état dafa naroon détruire état fu mu ne détruire état on a détruit ici l'université de Dakar. yow gisoo archive yi. non non amul loolu nga amul. on n'a pas détruit les bibliothèques. li ngay wax amul. mais détruire le responsable le responsable de la scolarité moom moo génn il a démenti tout ce que les gens ont dit. mais tout ce qu'on a vu. dama ne li fi nit ñi doon wax naan on a détruit tout ce qu'on a vu. Eh, oh, yow Farba Senghor yow yow nag yow yow moom Farba Senghor il faut faire attention est dans un pays normal. voilà que si le Sénégal est détruit. demain les états seront détruits. kat ma wax loolu. pour la CEDEAO. non Farba Senghor yow moom yow moom ah, yow moom tu ne vis pas dans ce pays. yow moom tu ne vis pas dans ce pays. non non non Farba yow moom da nga fiy toog di inventer rek rek rek rek. inventer rek non non mais non tu ne vis pas dans ce pays. non vraiment tu ne vis pas dans ce pays. bokk na loolu ba léegi ak inventer. non tu ne vis pas dans ce pays. franchement. non non non non Farba il ne vit pas dans ce pays. dama ne la cour de la CEDEAO. oui. il a rendu une décision. oui. Dans laquelle elle dit mm. que Sénégal que Sénégal a suivi mm -hmm. toutes les procédures de droit dans l'affaire bi bi koy opposé ak Sonko. waaw Sénégal dégg nañu ko. et tout le monde s'attendait au contraire. waxal la fa am. waxal la fa am. lu wax. waxal la fa am c'était par rapport à la dissolution du PASTEF. loolu la woon nay leer non non ça. on a dit loolu la loolu lañ fa bëggoon. mais dissolution bi la loolu. loolu la woon après dissolution la woon. ay ayca jërëjëf euh, Modou Diouf en tout cas man de joxe na information yoo xamante ni bokk ah peut-être man daf ma rëcc alaaji peut-être yow yëgoon nga loolu lu muy mm-hmm. wax si euh, li xew ci États-Unis euh, par rapport ak accusation yi nga xamante ne nii wax na ne Ousmane Sonko daf doon attaqué ay généraux ba nga déggee loolu Farba Ngom yëkkati kàddu yooyu noonu. Farba Senghor Farba Senghor pardon yëkkati kàddu yooyu noonu ban dégg-dégg nga ci. waaw Farba de wax dëgg fa yàlla lii mu wax moom. wax dëgg fa yàlla euh, nekkul loo xam ne lu ma bett la ci far ba <laughs> ah, lu tax. xam nga far ba moom euh, débat groupe WhatsApp lay débat. Hmm. Euh, fi mu toll nii maanaam parce que warta ñeme ñu teg la ci plateau télévision hmm. nga joxe wax yoo xamante ni bii li nga wax dañ koy dind ci saa si wan la ne li nga wax yëpp amut. te mënoo argumenté leen bi mu jaaxlee ci senegal moo tax mu génn réew mi wutali Amérique daal ni am na ko doon wax ci Joe Biden wax ju ñaaw ñu dóor ko fetal loolu it gars yi ne ko film dessin animé la xam na naa ah. ba ay Mickey lay seetaan xam naa ci la gis Mickey yooyu def ko wala mu nekk affaire caricature mais xam nga li am solo mooy kan mooy Farba Senghor loolu mooy li ëpp solo kii wax nii. nekkoon na fi ministre euh, mooy kan. Mhm. Farba Senghor mi lu jëm ci wàllu vingt quatre heures journal boobu. moom mii di Farba Senghor. Mhm. ay tuuma dalan na ci kawam ne moom moo ko attaqué woon. kon moom bu bëggee taxaw di ñu wax ku violent euh, moom ci jëmmi boppam euh, moom war na fu ñuy waxee ku violent war na moytu parce que ay tuuma dal na ci kaw ñu ne ko yow journal bi yow yaa leen saccagé woon Farba mi tey euh, pour fàtte ni ginnaaw bi nga xamante ni journalu 24 heures boobu affaire Idrissa Seck bi ñu doon sànni fii mooy këram gi ñu sànni woon fii ay neefare ak yooyu gis nga ko moom Farba moom it bokkoon na ca la nga xam ni tuuma yi daloon na ci kaw ñu ne moom mii moo ko doon def moom moo ñëw tey pour jox ñu ay leçon moom Farba hmm. maanaam tey jii bu ñu am moo tax man ma yërëm APR ah. waaw parce que bu ñu demee ba ñii ñoo leen di waxal problème am na ah, parce que li tax APR sosu hmm. ñii dañ cee am cër bu rëy parce que bu dutoon ak ñii président Macky Sall. day ànd ak Abdoulaye Wade mais ñii ñooy ñi nga xamante ne bi ñoo tàqale Abdoulaye Wade ak président Macky ba président Macky demal boppam sunu borom miy joxe nguur yëkkati nguur googu teg ko ci loxoy président Macky ñii bu seen pexe juboon président Macky Sall tey du toog fi mu toog. wolof daf ne ba ñu démb bu ñu nangoo seeni pexe jubul seen pexe jubul ni ñu àndeek ak président Macky Sall tey keneen bu fi nekkoon noona la ñu koy bawee dem ànd ak maanaam gëmuñu ko man président Macky Sall président dama ko xamante dama wax ne ku wéet la parce que ñi ko gëmoon ànd ak moom nekk ak moom nekkatuñoo moom hmm. ñi ci ëpp nekkatuñoo moom ñi ko gëmoon dëgg porté woon combat bi nga xam ne moom la doon combattre genn wàll gépp ne ko ñu ko contre dong ñoo sës ci moom rek ñii ngay gis ñi ñëpp tey ñu taxaw di wax ñoom ñooy ñi ko contre bul fàtte 2012 euh, guddi la Serigne Mbacké Ndiaye génn. Mhm. joxe ay résultats. loolu mënoon naa taal réew. fekk dëkk bi yëpp a ngi jubilé. ñëpp ne président Macky Sall gagné na élection yi. ñu bëgg a joxe ay résultats yoo xamante ni bi existé wut bu Ablaye Wade toppoon leen réew mi tàkk te genre ñu mel nii ñooy ñi nga xam ñii yi réew mi yitteelu leen maanaam seen bopp leen yitteel waaw am réew nag boo ci nekkee hmm. nga ne da bëgg réew mi de ràññee ñi nga xam ni seen boppaleen ñor ak ñi nga xam ni réew mi leen ñor hmm. maanaam pareen saay da nga naan ñii jaruñu sax fi réew mi toll nga leen di teg ci plateau. parce que jàpp naa ne fi réew mi toll nii pareen saay da ngay mbiru buzz écarter yooyu yëpp ki ngay jël di ko teg ci plateau dafa war a nekk koo xam ni. da lay biir ni même bu fekkee ne dafa ànd ak président Macky na ànd ak moom ngëm-ngëm. na la woon ni kii ku ànd ak moom ci ngëm-ngëm la parce que du ñëpp mën a ànd ñëpp ne sonk la ñu àndal. Mm. ñi dañuy ànd ak Amadou Ba nit ñi dañuy ànd ak keneen dañuy ànd ak. Euh, euh, kii dumu tuddati xalifa Sall nit ñi dañuy ànd ak keneen mais nañ ànd ak moom ci gëm li nga xam ni moom lay def jàpp ni lii mooy liy doxal réew mi mais ñoo xamante ni bi seen bopp képp leen ñor ñu mel noonu vraiment war nañ leen di moytul plateau yi rawatina nag ñu ci mel ni ki parce que taxaw ci tele di wax ci loo xamante ni amoo ci benn preuve loolu moom dafa doy waar. doy na waar en tout cas yéeme na mais bon mu ngi noonu euh, ñu ànd ak nag momatu Lamine jant mi nga xamante ne nii àdduna ci keroog bay Ayib Daffé mandataire bu Ousmane Sonko demee fële ca CDC euh, ngir yóbbu seen caution la fajato xew joxe na ca explication ñu xooli ko dellu si waat. xam nga CDC euh, ñoom dañoo jàpp ne Ousmane Sonko comme joxuñu ko fiche de parrainage kon moom bokkatul rawatina. le 19 il a demandé aux Sénégalais de parrainer la fiche de Bassirou Diomaye Faye ñu ne ah sa waay yow léegi moom xam naa costé na ko ils n'ont pas pris les devants. démb quand Ayib est parti à la CDC. waa ji ma dégg ñuy wax ne muy wax ne. jox nañ Ayib retourné nañ ko son chèque. nañu wax abi Ayib kañ jot chèque bi waa ji moo accueillir Ayib. ak huissier bi mu àndal. dalal leen may leen café yóbbu leen ci kees bi ñu versé. waa ji bind. Ayib Mohamed Ayib Salim Daffé mandataire. candidat Ousmane Sonko. coalition. Sonko président vingt 2024 montant 30 millions objet caution pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 xanaa gisul mu circulé quittance bi waa ji gunge ay ba ci porte bi ne ko bonne chance li may wax nii du ay caaxaan de c'est les faits ne ko bonne chance c'est pas lui qui a la décision non déglu rek ne ko ne ko bonne chance ayib génn say naataangoo ne dañ koy tendre micro. Mhm. ayib ne dafay décaler bu ne ko noo taxawal ci estrade bi fii nga def sa déclaration. waay ji mel ni loolu yëpp am na. boo gisee ayib laaj ko ndax li may wax nii du dëgg du dëgg. defal fii ci estrade bi defal sa déclaration. ayib def déclaration. dem assemblée. Mhm. defaat foofu déclaration. waa ji génn dans la presse. pour ne ayib dafay ñëw na fi déposé mais delloo nañ ko chèque am gisuñu ayib. ku mooy wax ak ni yow nii ayib fanaanu Sénégal. jant chèque bi compte mars Contivax la. ay nekku Sénégal. ay génn na génn na. ay nekkul Sénégal ay bi yóbbu na maa ko seetaan c'est responsable de communication. le monsieur là nekkul Sénégal. voilà. Euh, Alaaji dégg nga kàddu yi nga xamante ne ni Mamadou Lamine Diante expliqué na ko ne Ayib ba mu demee euh, la mu jot a def yëpp ba waa ji bi muy génn moo ko gunge ci porte bi lan moo xew nag si diggante bi ba waa ji génnaat def déclaration wax ne delloo nañu euh, Ayib caution bu mu fi indi woon parce que président Ousmane Sonko mi mu ñëwaloon nekkul ci liste yi moo jaaxal Sénégalais yi. waaw li xam nga Diante ñu koy nuyu di wax ni li Ayib def. ayib moom def na li muy def maanaam def na li muy def dem na yoonam. nee nga mat mag ndaw mu mat. ndaw <laughs> ndaw lu mat ndaw la ndaw la eh, def na li muy def. Mhm. dem na yoonam. Mhm. waa ji nag ci jëmmi boppam li mu def maanaam moo garaaw parce que ginnaaw bi mu defee ba pare. Mhm. waa ji dafa génn ne jox na ay jo delloo nañu ko segam moom la ñëpp après titré. ndekete gisut ayib ba di ko delloo chèque bi. d'ailleurs ayib sax nekkul fi. d'ailleurs ayib nekku fi loolu nag wax dëgg fa yàlla man dama jàpp ni yëpp sénégalais yi la parce que mën a ñëw jàkkaarlook sénégalais yi ne leen diw mi fi kii woon delloo nañ ko yëf ki segam te delloo wuñ ko ko loolu moom yëpp sénégalais yi la mais li ëpp solo rek ci mbir mi. Hmm. mooy l'autre jour dama seetaan Pape Sané mu expliquer. <laughs> Euh, kuréel gi ab taxawaayam maanaam lii yëpp ñu def mënoon nañ ko bañ a def parce que kuréel gi moom defut lu dul encaissé rek xaalis nee na mënoon nañ ko def sax ci bitigu koñ bii maanaam état bi daal il suffit que mu ne bitig boobooy jël xaalis bi rek mën nañ dem di fa yóbbu xaalis bi hmm. mais bu ñu paree nag ba toll ci war a joxe ñi nga xamante ne bi ñoom lañuy jox seen euh, kii ñu soog leen koo jox maanaam kuréel gi coow lii sax waru waru warutoon a am. Ah, mënoon na bañ a am waaw mënoon na mënoon na mënoon na bañ léegi nag lu tax ñuy créer coow yi. Mhm. coow loo xamante ni mënoon na ñàkk nga ne yaa ngi koy créer te coow loo xamante ni bi yow yëkkatiwu la parce que fa nga war a daanoo maanaam bu nit di ñëw di fay mhm. xanaa kay dinañ ne nit ki yow li ngay fay lan ngay fay nga ne dama ñëw pour dugal caution ñu ne bi de. ci turu kan nga ne turu Ousmane Sonko xanaa fa lañ war a defee vérification yëpp daal di xool ndax Ousmane sonk moom bokk na wala bokkut. léegi nee nañ nee nañ kuréel gi moom day jël rek. mais bu dee kuréel gi day jël rek fa ñu war a seggee nañ bàyyi ba yegg foofu ñu segg ko du dëkk. Mhm. bu boobaa problème du am. Mhm. mais il faut que ñu génn ginnaaw bi ay dafay ne dugal nañ kii bi ñu ne ko waaye li nga def moom kiiwut donc yaa ngi ci terrain politique. te terrain politique boobu lañ séentuwut administration di ci dugg mhm. parce que baaxul mhm. dafa am politique foo xamante ni fii fa nga war a administration dafa am fu xam ne fa la war a yem benn terrain yenn yi waru ci war a dugg parce que ñëpp la fi nekkal mhm. donc dañu war a liggéey rek ñoom seen liggéey bañ ci dugal lenn politique buñ nangu mbirum politique di ci rax boo gisee jamono yiñ toll nii li bloqué Sénégal lu ci bari lool la maanaam gars yi ne da ngay ñëw sax dem ci bureau kii di lijjanti ñu ne la yow xanaa Pastef nga <laughs> comprendre nga maanaam boo nekkee Pastef mën nañ bañ a lijjanti sa problème boo fa nekkut ñu lijjanti sa problème fi mu nii am na boo takkoon bracelet peut-être am na kii yoo këyit yoo xam ne mën nga koy lijjanti du sotti mukk mais loolu du yoon nag te loolu bu ñu demee ba administration di fonctionner noonu hmm. day indi blocage ci réew mi loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li ci doy mais en tout cas vraiment hmm. eh, waa ji moom ginnaaw mi ngi téye këyit gi ba noppi hmm. wëlbatiku naan joxe na ko ku ko dàq comédie moom yàlla sàkk comédien bu mag a ngi. <laughs> Badou kon xam nga si dara en tout cas amoon nañ ma jàmbal jaañ. waaw waxtu bi nag xoj nañu xoomaa ndax dañuy. Euh, waaw waxtu bi de xoj nañu. Mm. Euh, ndax dañ ko ci jàmbam déet ko ci jàmbal rek. jàmbal. na en ay ca topp Modou ñu dem ak ma jàmbal. Projet Bénéral Xolcom mooy scandale bu gën a rëy Sénégal scandale foncier bu gën a rëy Sénégal depuis bi ñu amee indépendance ba tey gars yi dañuy wax ndengaleer ndengaleer parce que bon boobu moo gënoon siiw mais Projet Bénéral Xolcom moo gën a scandale problème foncier yu Sénégal mës a am yëpp on peut pas comprendre euh, plus de 3000 hectares nga jël ko ci ay paysans yi xam ne ñu moom lañ yaakaaroon pour dund d'abord moom lañ yaakaar pour euh, des zones d'extension ci seen village yi moom lañ yaakaar pour survivre ñun Thiès on est père ki yow lay wut nañu régler problème mu jeex propose ko kat moom ma defal procuration sama doom ni ko kii dootuma wax ak moom yow toppatoo ko sama doom daal di ma père ki yow lay wut nañu régler problème mu jeex propose ko kat moom ma ko proposé quatre-vingt-dix millions ak benn terrain de six mille mètres carrés bu nekk dagg xol ko bu mu nekk bu nekk ci trop pour rien pour régler problème mu ni ko bëggul loolu voilà alaaji dégg nga moo koy wax ci ndorteel li six mille mètres la bu concerné Madiambal ak doomam bu ñu wax ne dañ ko jëlee nangoo ci ay villageois yu nekk fële ca booru Diass moom nag lañ indi ci table bi ma dégg nga lu mu ci expliqué ak doomam ji waa xale boobu nga mooy jeune bi nga gis noonu mhm. benn sénégalais la boo xamante ne bi nee na ci six mille six mille mètres yooyu am na ci deux carré yoo xamante ni bi bii moomeelu boppam la ba noppi euh, Madiambal nangu ko six mille mètres carrés hmm. c'est extraordinaire <laughs> c'est que Madiambal non seulement sax hmm. li waroon na ko rusa wax hmm. waaw te xool ko nee na mu defal doomam doom ji proposé benn waay boo xamante bi muy problème mu terrain bu mu amoon fii proposé na ko six mille mètres carrés fële boole ko jox ko quatre-vingt-dix millions Madiambal mm. journalam bi ah, muy génne muy génne lool am na xaalis moo tax Madiambal bu am na comportement yoo xam ne bu ko amee tamit bu mu bett sénégalais yi tamit ah, doxalinam ni muy doxalee ni muy doxalee maanaam boo gisee ni muy accroché wu ak wax yi nga xamante ne bi mi ngi koy wax parce que xam nañ ni ñi ngi ci loo xamante ni bi bés bu réew mi tegoo ci siraatal mustaqim seen affaire dootul dox danañ am problème dañuy nangu sax la nga xamante ni moom lañu ñu ki six mille mètres carrés xam nga ni waa dëkk boobu fi mu toll ni ñu ngi ne teg parce que gis nga li booy ba scandale foncier bu gën a garaaw bi kenn mosu koo gis mhm. comprend mhm. léegi ñu jël ko boole ko quatre vingt di million <laughs> Madiambal Madiambal ah, bari na xaalis de. torop macha allah. yëgalu ko yaramam sax nee na sama doom gis nga ni muy ñàkkalee fayda quatre-vingt-dix millions yi ak six mille mètres carrés yi maanaam yi nga xamante moom la joxoon doomam pour mu dem liggéey ci problème bi. ma c'est lii rek moo war a tax sénégalais yi. Mhm, yeewu tuuti. non yu mel nii non yàlla moo ñuy dimbali. Mhm. xam nga lu tax. Mhm. parce que lii muy wax nii lu mu waroon a nëbb la. waru ko woon a wax ay nit a waroon a dem sax gëstu ba gis ko ñëw daal di koy wax mais gis nga sunu boroom moo lay xirtal taaj la nga di ko wax. sénégalais weer sa bopp. lii nag dafa war a tax nag sénégalais yi nag daa dee xam ni. Hmm. réew mi mën naa neex. mais na fekk sénégalais yëpp tamit daa dee. def fulla ak hmm. fayda ci li nga xam ni moom lañ jëm muy élection yi jëm. jox ko yitte bu baax a baax a baax. Mm-hmm. parce que dafa am loo xam ni dafa war a dakk muy paajoo mu jigéen réew kenn du ko seddoo déedéet. réew mi ñun ñëpp dañ fee am cër parce que fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee doomu kenn gënu fi doomu kenn ñun ñëpp ay sénégalais lañ. te ni ñu doonee ay sénégalais. Mm-hmm. lépp loo xam ni koomu Sénégal la. sénégalais bu ne war na caa gis boppam mais ba jigéen da ngay gis nit ñoo xam ne ba ñu juddoo ba nëgë ni dañoo fekk ndey di luye bàyyi di luye ñu judd di luye jóge fi seeni doom continuer di luye hmm. jaaduwul jaaduwul am na loo xamante ni bii wax dëgg fa yàlla jaaduwul ci réew mi te gis nga li nga xamante ni moo fi xew hmm. nan la benn doomu aadama ginnaaw bi mu amee yu baree bari yu mu dëkk ak yu mu yor am fële six mille mètres carrés di ko xëccoo boo xamante ni no xëcc maanaam boo xam ne bi jël nga ko ba noppi te doyewoo ko dara maanaam di ko régler ay problème mu bay seeni mango di dem di ko jaay ci def lu ne voilà donc yi mooy yi nga xam ni mooy problème yi donc ñuy dellu rek mm. euh, di wax ni sénégalais yi en tout cas jot na ngir sénégalais yi ci seen jëmmi bopp xam ne nag wax dëgg fa yàlla réew yi ñuy mbëkk di dem bu ñu liggéeyee sunu réew mi mën na bañ a soxlaati lu bari yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi defal ñu li gën ci réew yaa rabbi amin jërëjëf ay ca mu ngi noonu yal na yàlla dolli sutura sàmm ñëpp nag euh, lépp lu fi jafe-jafe rek yàlla suñu borom fankal ñu ko fankal ko mboolem jullit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñu doon suivre duñu bàyyi xel jaajëfal itam Modou Diouf euh, Abdou Top ak Lay jàlloo jox leen di daje beneen altine ci l' émission des émissions.